bu tedd bi bis bu màgg bi comme ni ko sëñ Mamoun waxee léegi di bis boo xam ni Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul moo ci joxe ndigal njabootam gu tedd gi tedd gi it fonk lool at mu jot ñu yeesal ndigal loolu ba ci sëñ Sidil Muxtaar gis ngeen at mu jot buy def bu yëgle màggal gi balaa daanaka kàddoom dina soññ ci gàmmu gi euh, ñu am mbégte nag euh, ndax lii sëñ Baara def tey dafa mel ne at mu jot mu def ko waaye day tamponné ndax bu ñu nekkee ci dëkk bi nekk njaboot di dund ak bennoo ak cofeel ak bëggante suñu biir ni ko sëñ bi déglee ñaane ko ko ñu ñëw tey ci suñu kër xarit bi suñu kër sang bi suñu kër soppe sëriñ xarim nga xam ne gàmm gi ba mu koy defee ca marché bu mag laajte laajte lan ndax colori go nekk suñu diggante ni ko sëñ maamu junjee léegi mu wër bëti ko di ko def promenade Thiès bi ni mu ko defee fii ci penc Bagdad euh, at yi nag Cheikh Mouhamadul Bachir dugal ci kàddoom ni ma dee ci teew di ma fa teewaaleel ndax moom it day def lu daal ci moom suñ xaadim dem ba ca moom muy xew-xew bànneex muy xew-xew naqar waaye ñu bégloo bi ñu fekkee suñ Cheikh Bara mi muy jëmm ju tedd jëmm ju baax sëñ bi du ko dox loolu lu ko ñor muy digganteem ak njabootu lislaam yi ci réew mi mu ci dox doxin bu rafet wax naa ko ni ko ñi suivre sa discours ñëpp de mësuñoo dégg nga wax dara ba ñu ni lii de waru ko woon wax wala lii de waru ko woon waxe ndax moom waxam lépp day tàmbalee ci xasiida yi ci alxuraan ak ci hadis du ko génn te noonu it la ko suñu sidil moxtaar bëggee moom it muy jëmm joo xam ne suñu xaadim ñu ngi lay seeral suñu diggante ak moom mu jëmm joo xam ne euh, man mi daf maa fonk lool ci kaw fonk mu fonk suñu bas ndax suñu bas heure bu ñu wéetee ma koy tudd suñu baara daan ma suñu baara li ma neex si ma dafa dëggu waaw nit ku dëggu la ku baax la euh, ku bëgg lu baax ku xeñtu lu baax yor daaray alxuraan tabax jumaa joo xam ne moo ko tabaxal boppam yor daa da ca sonn lool nag néew na sax guddi yoo xam ne du yu muy fanaan lu ci bëri mu guddi guddi guddi ci dëkkam bu tedd ba lee dem fanaan fa daara ja nekk jumaa ja ne fa moom it euh, ñu koy seddal Sénégal di ko seddal àddina di ko jaanal suñu borom subhanahu wa taala mu gën koo taxawu gën koo kattanal ba liggéey sell bii muy defal waajur mu tedd bee yàlla gën ko ci jàppale insha allah defal ko ci tawfiix sëñ bi yow ñu seedeel la ni sëñ Xaadim Lo suñu diggante moom diggante bu yàgg la ñoo nekkoon woon ci daaree Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Xaadim Rasul boobaak léegi lu may xewle ndaw mo fi jitu bala bis ba sa dafa yone euh amna bisu alxuraan bi nga xamne ne bi ma koy def ren am ñaar fukki at ak juróom eh, bi ma koy wutal parrain def naa ko fukki ak nangam amul parrain mom mi la bu njëkk def ci parrain bi mu teew fu fessel stade bi del te bisu doon taw taw bu métti métti waaye mu ne ma do taw bi bëri bëri bëri njabot gi wax na jox na ne ndigal ñu ñëw te te ñew ñew bay ñew moy mu xusi bi taw bi ñew euh lool nak day digënde bu yàgg bo xamni euh wané gu mu wané suñu digënde ak suñu coofeel motax tax sëñ Bass di loolu la xam motax at mu jot mu ne ma fi ma lay yebal ci gàmmu yu bëri na waaye na nga njëkk ci sëñ xaadim euh, ndax mu xam sama digganteek moom xam ne jàpp naa ko fu ne ni su ma jógee fii maa ngi jëm ci seen tàkkum sëñ Murtada jógee fa dem Kaolack waaye lu mu guddi guddi naa ñëwaat ci tànt bi wéttali ko ci tànt bi ndax ndigal loolu la am kon daal ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala suñ Cheikh Mamadou Bara dafa xaw a yàkkamte ndax dafa jëm ci waawoon war a teewal sëñ bi ca cérémonie ba te cérémonie ba day teel tàmbali dañ noonu nañ ko bi ñu ko fi dajee moom amatuñu woon kàddu suñu kàddu dafa doon dugg ci biir ndax foo dem ba fekk fa sëñ Sidi Moxtaar moom sëñ Bass nekkatu fa ndax sëñ Bass bu fi nekkoon du wax kon nag loolu moo taxoon sax dana ñu ñaari kàddu yi moo tax ñu may ñu fekkee lii ñaan yàlla ñu gën ko fekkee sëñ Xaadim mi ñu yàlla yàlla sàmm ko dëgëral ko liggéey bu tedd bi muy def ci àdduna di ko def ci biir réew mi rawatina fii ci diwaanu Thiès yàlla gën ko cee kattanal gën koo taxawu euh, moom it li may wax ci yow daay wax ci moom musuma gis mu def benn mouvement wala benn activité boo xam ne mutu Thiès nañ ci am gerte wala ñu jéegoom yëpp jéego yu baax la njabootam li leen di mooy dama leen a loo wooloo leen jàmmloo leen la ci biir tànn bi la dajeel mbooloo bi at mu jot wax leen ni li ma leen def loo mooy ku ci déggum noddu na nga jóg julli jàpp julli loolu nag euh, yaakaar naa bëgg alxuraan nag bëgg sëñ Tuubaa la mën a yem ndax ni boo ko bëggee da koy bëgg la dama bëgg te Sëñ Tuubaa ko xam xam ne nitu sunna la woon nit ko bëggoon alxuraan ko bëggoon Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kon nag dañ lay seere loolu ci moom ñaan yàlla yàlla def tawfiq ci réew mi def jàmm ci réew mi euh, def développement ci réew mi Sëñ Sidi Muxtaar yàlla sàmmal ñu ko bàyyi ko suñ ko ndax moom it fierté àddina la fierté soufisme la waaye fierté yoonu murid la fierté taalibe Sëñ Tuubaa yëpp la ci njàmbaaram ci bëggam lu baax ci bëggam lislaam ak bëgg njabootu lislaam gi ci réew mi yëpp yàlla na ko yàlla jàppale incha allah taw bàyyi ko suñu kanam bu baax a baax incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu leen nuyoo ba noppi delloowaat sama ziar. nee mi ngi delloowaat sama ziar. ak sama taalibe. ak sama taalibe. ci xalifa bi di Cheikh Sidi Mokhtar. ci xalifa bi di Cheikh Sidi Mokhtar. nee na te gën di yeeslu rek. di ñaan yàlla yàlla sama borom yàlla yàggal ko. di ñaan yàlla sama borom yàlla na ko fi yàggal te wér. Eh, nee mi ngi sant bu baax Cheikh Bassirou moom Cheikh Abdoul Khadir. ne at mu nekk mu def lii. moom at mu nekk mu def lii tànn ay xewal yabal Cheikh ahmad salum Nasruddin. mu dik teewal ci ko. mu koy def at mu nek neena lolou ñu ngi koy sante diko ko sante yi sant yoon yëpp. di sante nak mbolem yoon mi yëpp nak ayu bi gi ni yo xamni ne. ko ci sëñ muntaha dalee ko ci sëñ muntaha ba ci keur yi Touba yëpp. ba ci këru Touba yëpp. mbokk yi ak askan yëpp. mbokk yi ak askan yëpp. ne say teranga ak say ñaan. ku ci ne say teranga ak say ñaan. ak say ndaw. ak say ndaw. fekk si na ma fii ci Baxdaad. kon nag ñoom. ñoo ko def. ñoo ko def. ngir jëmmi sëñ Touba ngir jëmmi sëñ Touba rek. waaye man jaruma nee na waaye man de wax dëgg yàlla jaruma ko. te liggéeyuma lu ni toll. te it liggéeyuma lu ni toll. kon nag sant naa mboole mbokk yëpp. sant naa mboole mbokk yëpp. ñi ma bokkal ndaamit. nee ñi ma bokkal ndaamit. menn penc desul. menn penc ba démb ci mujj. nee ba démb ci mujj. ba tey jii. ba tey jii. ñenn ngi ci biir. ñenn ñaa ngi ci biir. kon sant naa mbokk yëpp. kon sant mboolem tariixa yi. mboolem tariixa yi. ñëpp daje nañ. sant naa it. kon sant naa it. di ko seereel it. di ko seereel it. ki xam ne mooy sëñ eh, ko seereel Serigne Cheikh Baral Abdoul Ahad. mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Sidi Muxtaar. Sidi Muxtaar. di ko seereel loolu. nee na ndax moom moo moom loolu. ndax ñi fi ñëw ñëpp it. bi rek lañ fi tax dikk. Serigne bi rek lañ fi tax dikk. bu kon yow boo dikkee it. ma seereel la it. ñi fi jaar ñëpp. xam ne sëñ bi nga xam ne sëñ bi rek a leen tax a jóg. di ko sant nag moom ci boppam. na yow Cheikh Baara Ahad sëñ baa ngi lay sant yow ci sa bopp. taxawaay. ngir say taxawaay. ak nite. ak ak sa nite. ak gu nekk ci moom. ak dëgg goo xam ne nekk na ci yow. ba ñun ñëpp ñu maase ko xam. ba ñun ñëpp ñu maase ko xam. nii ko sëñ Ahmed Saloum waxee. nii lu ñëpp yi waxtaane la. ne loolu Mbàkke lu ñëpp yi waxtaane la. loo wax rek. loo wax mooy li nekk ci yow. sëriñ bi. sëriñ bi. néewaan na it. néewaan na it. ma ñëw fa te fekkuma la ma ñëw fa te fekkuma la fa. kon loo wax ci suñuy jotaay kon loo wax ci suñuy jotaay it. noonu dong la amee. noonu dong la amee. ba bërki démb ci mujj. nee ba bërki démb ci mujj. ba ma yegsee laata ma yàgg ci moom. nee ba ma yegsee rek laata ma yàgg ci moom. yow laa njëkk a saafanteel. yow ñuy waxtaan. ñuy waxtaan. duñ ko di déggee. nee na it duñ duñ bii it. raison bii it. liggéey bi nga fi liggéeyal sëñ Touba. liggéey bi nga fi liggéeyal sëñ Touba. lu fi xew ci kërug diine. lu fi xew xam. yaa ngi gëstoo xam. di jël sa alal di ko ca def. di jël sa alal di ko ca def. ngir ngir jëmmi sëñ Sidi Mokhtar. ngir jëmmi sëriñ Sidi Mokhtar. di ko taxawoo bi. di ko taxawoo bi. di ko jàppale sëñ bi. di ko jàppale bi. ba àgg ci di ma laaj. ba àgg ci sax di ma laaj. yan buntu kër lañ war a jàppale. yan buntu kër lañ war a jàppale. ci yeneeni tarixa. ci yeneeni tarixa. di ko def. nee na yow loolu doo jóg ci di def. am ci ñoo xam am ci ñoo xam loola it. loola it. dañuy ñëwaat ba fii di ko fi sant. dañuy ñëwaat ba fii ko fi sant. kon nag fi nga féete sëriñ bi. kon nag yow Mbacke fi nga féete sëriñ bi. yàlla na nga fa yàgg féete. yàlla yaa ngi liggéey liggéey bu am solo. yaa ngi liggéey liggéey bu am solo. nag waxtu wu nee na nag ndax gis nañ waxtu wu ne. waxtu woo waxtu woo fi teewee. daggiwat daggiwat nu tooyal suñuy xol tooyal suñuy xol Namat nu namat nu suñuy pastef dolleeku suñuy pastef dolleeku amul at booy ñëw amul at booy ñëw rek te indi woo fi kaddu goo xam te indi woo fi kaddu goo xam ni mooy kaddu sëriñ bi mooy kaddu sëriñ bi lii nga ma wax nii rek lii nga ma wax nii rek barki dem moom la sëriñ bi wax fa ma ko fekk maa barki dem moom la sëriñ bi wax fa ko fekk maa ngi ak yàlla maa ngi ak yàlla ci cant ci cant ak ngërëm kon nag kaddu yi wax nee kon nag kaddu yi nga wax ñu ngi la ciy sant di la gërëm. ñu la ciy sant di la gërëm. Eh, bis bii nee na ndax bis bii ñuy màggal. Eh, yonent bu nekk am na luñ koy màggalee. yonent bu ne am na luñ koy màggalee. waaye yonent bii moom. waaye yonent bii moom. biñ ko laajee lu ko tax a dikk jamono. biñ ko laajee lu ko tax a dikk jamono. nee na damaa ñëw ngir mottali jikko yu rafet yi. mu ne damaa ñëw ngir mottali jikko yu rafet yi. jikko nag mooy nit. jikko nag mooy nit. te sëñ Abdou Lahad danoo ma sa wax ni te sëñ Abdoul Ahad Mbacke danoo ma sa wax ni kilifa bu nekkee ci digg kër kilifa bu nekkee ci digg kër mel ni gaynde mel ni gaynde nee na gaynde bu gone yëpp ñëwee nee gaynde bu gone yëpp ñëwee di fo di fo ca sëq ma bu gaynde yëpp gaynde bu gone yëpp ñëwee di fo ca sëq ma ca karaw ga di di foo ca karaw ga nee na ñàkk a wane jikkoo tax nee na ñàkk a wane jikkoo tax waaye boo ne woon jikkoom kenn du ko jege waaye gaynde ga su wane woon jikkoom kenn du ko jege kon nag am nañ nii nga taxawee. nee na kon nag xam nañ nii nga taxawee. Ah, woyof nga lool. nee na Mbàkke woyof nga lool. waaye diis nga nag ci biir. waaye diis nga nag ci biir. am na noo xam ne boo ko wane woon. xëy na it. nee na xëy na it. daanu maandu ci yow. daanu maandu ci yow. waaye ku yow du ko woyof nga. woyofal sa bopp. du ko woyofal sa bopp nga. yàlla nag. na te yàlla nag. foofu rek la nekk. foofu rek la nekk. ndax doomu aadama it. bëgg na ku ko dimbali. bëgg na ku ko dimbali. waaye bala nga leen a mën a dimbali. waaye bala nga leen a mën a dimbali. da ngaa wàcc ba tolloog ñoom. wàccee nga sa bopp. nee na yow nee na sëñ Abdou Lahad. ma jur. nee na sëñ Abdou Lahad moo ma jur. sëñ Baara ko jur. da sëriñ Baara ko jur. nee na loolu Mbàkke doy na sëkk. wëlbatiku lislaam jëpp. nee wëlbatiku lislaam jëpp. sëñ Sidi Moxtaar teg ko sa loxo. sëñ Touba Cheikh Sidi Moxtaar teg na kon doy na sëkk nag. ah loolu doy na sëkk nag. ay cëri cëri cëri ay cëri cëri cëri cër la. cër yooyu yëpp nag. waaye cër yooyu yëpp nag. nii nga ma amee. nii nga ma amee. nga amee Cheikh Ahmed mii. ni nga amee se Ahmed Saloum mii. amee ko keneen. amee ko keneen. amee ko mbokk yi ko mbokk yi ci Tiwaawan. amee ko ñetti ñeseen. amee ko ñetti ñeseen. waaw bi la sëñ bi yabalee nag ba noppi. nee bi la sëñ bi yabalee nag ba noppi. ñun dañ laa téye ndax sa jikko ñun nag dañ laa téyewaat ndax sa jikkoy sa jikko. nee na ndax yow Mbàkke sa jikko. lañ àndewaat ak yow. lañu xam ne. amul dara loo xam ne. xebet nañ ko. xebet nañ ko. mbaa ñu xeeb ko. mbaa ko. jikko yi na. jikko yi rafet na. ñu lay sant di la. ñu ngi lay sant Mbàkke di la gërëm. di feddali lépp. di feddali lépp. yow nag danoo bokk ay bokki bokk. yow nag danoo bokk ay bokki bokk. waaw maa maa bàyyam noo man ak bàyyam ñoo bokk benn nih bi bokkaat sëñ Baara boo wëlbati ko bokkaat Cheikh Modou Lamine Baara di ko dox nee na loolu nag Mbàkke nga dëkk ci di ko dox ak di ko rafetal kon ñoo ngi lay sant li nga fi wax ci ay kàddu li nga fi muy message sëriñ bi na ma ci am njàngat nee na man sax jox nga ma ci am njàngat mooy ci li nga wax ci crise yi manees na koo gën a yaatal manees na koo gën a yaatal guddee insha allah buñ duggee insha allah rabbi guddi gi ci tànt bi nee na ci guddi gi ci tànt bi nee na daanu ko gën a yaatal jërëjëf Mbàkke jërëjëf Mbacke. jox nga ma message bi nee na nag jox nga ma message bi nag. jërëjëf.